calme di calme gars yi di calme léegi mu jeex jeex na ba pare focus sur les élections focus sur le départ de Macky Sall à présent le président Cheikh Tidiane Dièye asalaamualeykum Dakar asalaamualeykum Sénégal mbokk yi focus focus focus focus ma ne mane ne benn adversaire am il s'appelle Macky Sall il part le 2 prochain mbokk yi dama bëgg ngeen calmé dama bëgg ngeen calmé wu vous avez un adversaire celui qui vous a trahi ki wor Sénégal ki wor askanu Sénégal kooku laa bëgg ngeen xam ne mooy seen adversaire ñu focus pour que le 2 avril mu quitté le Sénégal mu dem yoonam tàccu leen seen bopp yi tàccu leen seen bopp yëkkati leen drapeau yi s'il vous plaît levez du Sénégal mbokk yi nous sommes très fiers de vous au tous les candidats je parle des candidats dignes je parle des candidats qui sont avec le peuple candidats yi nga ni ñoom ñoo leen gëm candidats yi ànd ak yéen di ñoom laay wax ci seen tur di wax ni ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu leen di wax ni lii ce n'est que le début le compte à rebours a commencé tey le mars dans un mois le avril Macky partira et eh, mbokk s'il vous plaît calmez-vous calmez-vous s'il vous plaît may wax ni Macky le avril ce sera fini may bëgg a répondre au ministre de l'intérieur Sidiki Kaba Sidiki Kaba il ne paye rien pour attendre Sidiki Kaba il ne comprend pas Sidiki Kaba xamul li mu bëgg ñu koy wax le avril ce sera la fin du mandat de son patron et moom ñoom ñaar dinañu ànd ils vont quitter le pays mbokk arrêtez arrêtez les jets de pierre s'il vous arrêtez les jets de pierre Tout ça, ce sont des provocations. S'il vous plaît, hey, eh, les ça. C'est dommage. manifestation baa ngi noonu euh, noonee la mujjee muy waa kër Khalifa Sall ak ñenn ci ñoo xam ne euh, fii la ñu nekkoon commencé nañu sànni li nga xam ne moom mooy ay grenade lacrymogène manifestation bi tas na parce que euh, dafa am affrontement entre ñi fi nekkoon di yuuxu Khalifa Sall ñeneen ñi di yuuxu Diomaye ñeneen ñi di yuuxu Ousmane Sonko militant yaa ngi noonu. gars yi. ñu jàpp ñu tëj ñu kaso bi tey tey lii la ñuy fayee maam Barthélémy Dias tekkiwul dara naa fexe saytaane la ñoom li ñu bëgg ñu fekk leen ci. problème bi. ñoom c'est Barthélémy qui qui a fait ça c'est Barthélémy Dias sa Dias moo yemale ay mi ñu ñëw pour yàq xaw mi waaw. Oh, oh! topp nañu bopp caméraman bi topp baa ngi nii voilà comme euh, yële ko gisandoo li nga xam ne mooy waa kër euh, Khalifa Sall ñoom ñoo doon jaama dégg nga ñii nee nañ Sonko ñu ngi naan Sonko ñu ngi naan Sonko police nag xaw na fi jóor doon lacrymogène police gi nga xeer yee ngi ñëw lacrymogène yi lacrymogène yi ñu ngi yassi lacrymogène yi mi ngi yassi mi ngi yassi mi ngi yassi ndax affaire yi du mujjee policiers yi at gars yi ndax affaire yi Mohamed bul bul daw police a ngi dóor police a ngi dóor police Eh, xeer yi xeer yi nañ tafu xeer yi xeer yi oh, oh xeer yi xeer yi yi xeer yi police door na Lac Ramazel door na door na xeer yi ba léegi ñu ngi ñu ngi dem Babacar nañ moomee nañ jéem a tafu na le nañ tafu na le nañ tafu na le dégg nga gars yi ñu ngi naan calmer leen eh, kooku nee na amul calmer Mohamed Mohamed sawaay lu xaw sawaay wala lu xaw. non loolu waaw Barthélémy Dias ñoom ñoo ko doon def ñëpp a ngi leen di gis. ñoom la ñoo ñëw fii commencé di. ci yar rek lii wala xool ñoom ñoo ko def problème bi. ñoo ñëw fii ba mu jëm xaar xaar xaar xaar xaar. xeex bépp ñëw ko wala xool. Dakar Dakar du gi rafet na Dakar du gi rafet na. depuis démb depuis démb ñu ñoo ngi signalé ni que waa xalifa yi ñoo bëgg a ñëw fii pour yàq meeting bi depuis démb ñu ñu ko signalé ñoo nañ fii ñu andi ay agresseur ay agresseur la ñu andi nekk si biir terrain booy di këf ak booy di dem li lañ ci bëggoon nag mais ku ñu woo si violence ñu si. est-ce que yoon la est li yoon li du yoon opposition bi yëpp nañ mais soi-disant mënuñu mënuñu mënuñu comprendre ay ñoom Barthélémy dëbb di taxaw même na Ndour Faye lu ñu ko def ñëpp dañ koy ñaawlu mais mënuñu comprendre gars yi di ko dëkkaloo foo xamante ne jógewu fa. ko waa xool police. dañoo xool policiers yi lu ñuy def. ndànk rek ci yar rek ci yar rek ci yar pour ñu yàq suñu xew bi dañ koy yónni suñu élément pour ñu yàq suñu xew bi xam nañ ñi leen yónni waa nguur gi rek moo leen yónni pour yàq suñu xew bi ndànk rek waa ndànk nee na ñun Sonko la ñu bëgg nee na Sonko la ñu bëgg Mohamed oto bee ngi dem Mohamed oto bee ngi dem oto bee ngi dem oto bee ngi dem oto bee ngi dem dafa oto bee ngi dem oto bee ngi dem nañ dem xool ko de bële. non am na ay blessé am na ay blessé suru xuy am na ay nañ dem xool am na ay blessé nañ dem xool ndànkarat ndànkarat ci yar ci yar ci yar yàq lii nag comme moo ñëw yabal kay booy ñu nekk nii. yar yar manifestation bëgg ko yàq mooy Khalifa Sall yoo ñëw andi ñu ay bandi ay drogué ñu ñëw di ñu sànni amul saaga amul saaga amul nee na Sonko ret amul saaga amul saaga amul saaga dañ dem xool police dañ dem xool dañ dem xool dañ dem xool lu xew dañ dem xool sa waay lu xew sa waay lu xew lu xew lu xew suru xub bi ba léegi ba léegi ba léegi booy Xalifa yaa nga ne ay beneen côté bi beneen côté bi beneen côté bi fee musiba dina am fee musiba dina am am jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi oh jigéen ñi ba moom it daal moom it ci ruq ma dem moom it nañ dem nañ xool ci ruq lu fa xew. ndax waa kër xalifa yi am naa ay jigéen yu soloon shirt lu fa xew xeer fu nekk mi ngi jóge ñuy may xeex tey jam si kaam loo loo wax loo bëgg a wax bëri na am na lu xew am na lu xew lu xew am na ndax amuñu nekk suruq bi nañ tafu nii nañ tafu nañ tafu dugub bi si fay ñu kat seen ndey laa ilaha illallah loo bëgg kuma xam nga la demee man maa ngi woon ci biir foule bi bi gars yi di jël seen manifestation pour wax waa kër Khalifa Sall yi dañ ñëw uniquement pour tooñ éléments yu indis ñu ñëw commencé perturber di tooñ mbir mi noonu la demee di xeexan seen biir di xeex di dóorante affaire bi mu jël law nag si foule bi noonu la mbir mi demee Mohamed Mohamed gis naa kenn moom it si assez détenu si assez baadu xeer ci kayni ci moom it si assez détenu yo mais ci li am tey noo ko gisee li ngay gàcce rek comme li ma wax rek gàcce la tey opposition bi ngeen woote mu mujjee lii man mënuma comprendre lii quoi ñu pare wuñ quoi pour xeex ak waa ji en tout cas d'ailleurs man bëgguma woon ñëw sax préparé woon pour ñëw parce que xam naa ne coalition c'est pas sincère aussi mais est-ce que est-ce jotul leader yi ñëpp toog waxtaan. jéem a waxtaan seen njaboot yëpp commencé wul fii quoi xam nga taay ku nekk tension boo seet dans réseaux sociaux c'est comme ça ku nekk da ngay lii sa bopp ku nekk am nga droit foo far mais buñ dajee si ku nekk nañ def intérêt général quoi léegi dafa ñaaw quoi sang bi xaañanta xeer surtout maa jigéen jigéen xam nga moom mooy loolu ah man moom su ma gëntoon du ma fi teewa en tout cas. kooku Thieló la. lañ jéem a dem ba ci. téléphone yooyu ngeen jul ndeysaan ma ndax euh, moomee ndax sa téléphone ba léegi ñu dem lu xaw fële lu xaw fële lu xew fële. dafa mel ni jigéen lañ tàncoo dafa mel ni jigéen lañ tàncoo. dawal leen ko yërmande yërmande yërmande yërmande yërmande. saa yi foo génn rek génn kaso bi laa jógee barki tëm par chambre par chambre garantie laa nekkoon nañu ñibbi nañu xalaat ñu ne si biir kaso bi nañu leen a xalaat suñu bopp ñu dem kaso bi. oh mu ngi sànni oh oh. mu ngi sànni mu nañ dem xool kële nañ dem xool kële nañ dem xool kële moom ku jigéen kii oh ku jigéen kii ku jigéen kii ku jigéen kii Mohamed ku jigéen kii Mohamed ku jigéen kii ku jigéen ku jigéen kii ku jigéen kii oh ku jigéen kii dugal ko si oto police bi dugal ko si oto police bi Mohamed gisuma Macky mais mi ngi leen di ree. non si danger la. ba léegi xeer yaa ngi dem. ba léegi xeer yaa ngi dem. mais papa papa lii li gis lan la. lii lii lu ñaaw la ñaaw la lii fa ñaaw topp parce que fekk parce a ñun day ñëw. a ngi gazee ñu ngi gazee ñu ngi gazee. mais mais Mohamed ba léegi booy songo guñu policiers yi nag. ba léegi eh bi eh, ngi eh. eh. waaw waaw waaw bi ngi ñëw nag bi ñëw Mohamed nag bi ñëw Mohamed nag bi ngi ñëw fan la ñu aw. Mohamed fan la def nee nañ def nee nañ def nee nañ def nee oh oh Mohamed Mohamed Mohamed ana nga Mohamed gisatuma ah, ñu ngi nii taxaw waaw ñu ngi yi nag ñu ngi dóor. yéen ñi nekk circulation bi bàyyi leen xel voilà internet yi comme ni ngeen ko gisee euh, affrontement yi nag euh, dafa tàmbali sëñ bi naka nga def voilà yaa ngi en direct coow li lan moo ko waral coow li ko waral mooy waa Khalifa Sall yi ñoo ñëw bëgg a briser waa Sonko yi te waa Sonko moom moom ba léegi ñu ngi wax naan ñoom la est-ce que am ngeen firnde ne ñoom la ñoom la c'est sûr que am nañ firnde ne ñoom la parce que lii mosu fi am ñun fekkee nañ ay organisation manifeste yi bëree bëri te ñoom amul benn problème waa Khalifa Sall yi ñëw di ñuy ruube quoi fii Sonko moom moom Sénégal point. voilà nee na Sonko moom Sénégal waaye gis nañu ne nag rassemblement pacifique bi nga xam ne waa FDD ñoom ñoo ko woote woon fa mu muccee moom mooy ay euh, sanante xeer gis nañu. ñoo ko créé ñoo créé xeex bi ñoo ngi nii daw nañ booy woote xeex da ngay fexe pour nga taxaw pour xeex mais nga ñëw pour yàq ñun kenn fay ñu même bu ñu joxee paas 10 000 dañuy paas wuyu fi Ousmane woote barki alxuraan bu ñu Ousmane wooyee si armeel sax ñu wuyu ko si armeel yi ñu jàpp fii ñu bokk lu ñuy xeex benn objectif. fi mu commencé mooy waa kër Khalifa Sall yi xam nga la lañ bañ a dégg Ousmane Sonko barki Serigne Bamba yow journaliste bu la Ousmane tegee ñu votel la nañ bàyyi tooñ amuñu doole amuñu priorité ba pare bëgg a tooñ ñi ñoom bu ñu wootee kenn du ñëw ñoom kañ la ñuy ñëw bu ñu waxee bu autorisation ñu ñëw fii mooy loolu noonu bu dëgg du yoon. lu la gaañ lu la gaañ. dañoo sant xeer dañoo sant xeer sel bi xeer bi dal sama sama tànk gis nga bilaay ñoom waa la ñun dañuy. mais est-ce que tey lii du diviser ah, ay mouvement lañ yor mouvement ak parti bokkul bu ma parti bokkul. waaw Barthélémy Dias mi ñu jaakaar moo gën a tabbat Macky Sall Macky Sall mënuñu tere mënuñu tere mënuñu tere def suñu kii journaliste la bu sañoon kenn du ko laal jigéen même sa jigéen sa ko xoolal boo xool sa jabar boo mu xoosu waxuma laa ñu jàpp jàpp jigéen jam ko loolu yàlla moo xam kan la def yàlla nañ ko yàlla jàpp ko ñu teg yoon parce que loolu du dëgg du yoon mais bu ñu jël kenn di ko jiiñ naan kii la wala fii ñaata quatre-vingts personnes lañ fi rey est-ce que dañ fi génn di ko manifesté wu a quatre-vingt-quatre jeunes fii ay xale yu ndaw lañ jàpp fii rey ko Sénégal amnistie du fi am. kan la ñu bëggoon agressé. kon ñu déggandoo ko Mouhamed ñu jéem a dem rek gis nañu ko comme ni leen ko doon waxee ki nga xam ne nag moom mooy euh, caméraman a dem. naka la kële ah bi nga xam ne moom moo nekk Medina TV dañu mujje toj boppam ba présentement mu ngi ci clinique bi waaw waaw teel ma micro rek waaye am na tey waaye lii sa ko day gis rafetul Ousmane Sonko baatil mais amoon na yoo xam na ko rus a def yii rafetul gis nga nit wàllu gis nga li Macky Sall rek ngay ndam ñun am na yoo xam tey fu ñu toll mooy Macky Sall ñun la ñuy xeexal lu ñu moom ñun xajuñu ci kawam comprendre Khalifa Sall même tey bâtiment mairie Dakar gii mu nekk nii wallahi azim billahi wallahi taala Sonko moo ko fa teg député gu mu ko fa teg Sonko moo ko fa teg am na yoo xam ne waroon ko rusa mun a fayee yéen fii ñu ñëpp ñoo fi bokk mais nañ ko rafetal mu rafet mais boo defee ni jour campagne gi jot xam nga ne fii dëkk bi Pastef moo fi dool nañu waxante dëgg rek bu dul campagne jot fan ngay jaar fan ngay jaar na gars yi bàyyi lu ñuy def te yàlla tax am na yoo bu ñu may Macky Sall mu ñuy reetaane euh, lii lu ñu def nii rafetul démb ñëpp topp si ginnaawam man temps boobu si gën short laa nekkoon Doudou Ka laa doon nekk si ginnaawam mais tey xoolal lu mu bu dee ñun ñëpp ñu